siir ibn xaadimul Moustapha yàgg fi ca wér di nuyu bu baax jëwriñ sëriñam di buntam ci këri sëriñ saaliw mu sëriñ Cheikh mum sëriñ saaliw mu làq njaari ngërëm yépp ci màggal gii nu génn barki dem rek sëriñ Cheikh saaliw gërëm ko sëriñ Muntaxa gërëm ko tey jii am na ay xéewal yoo xam ne ña nga bàyyi koo ci moom jëm xel koom waaye kii fi ñëw tey darul gan kër baayam la ñëw Cheikh Béthio yàgg ñëw ci ëtt bi di nit koo xam ni réew mi yëpp xam nañ ni mu mel ministre la la ab Ablaye Diouf saar ci ngor ci mbaax ci yiw loolu la Serigne Saliou wax ni jàpp naa ko ndax jéego yi mu def ndax sagal la ab sàcc rek bañ ko ko yëg déplacement bi for na lool. mu di la sant bu baax dina ñaanal ndax dangay mbokkum ndakaaru di mbokkum réew mi lii sëriñ Bass Abdou Khadre moo la ko wax ci màggal gi ni la kat na ngeen gisee na nga fa dem waaye fekk na loolu yónnee woon nga ndaw waaye lu jot yomb tey ji ko yàlla def kon monsieur ministre sëriñ baa ngi lay sant bu baax taalibe yi ñi ngi lay sant bu baax ndax ku yokkul danga wàññi kuy sama wayjur Cheikh Béthio Thioune moom Serigne Saliou li mu liggéey ci kër sëriñ Touba li mu def ci kër Serigne Touba li mu liggéey ak la mu def lépp waaye lépp xeeboon ko jaay lépp jënde ko taalibe loolu yaakaar naa ni mooy lii nga xam ni moo fi tey ñu la ñaanal yàlla yow tam naal bi nga xam ni naal nga ko muy sa liggéeyu bàyyi yàlla na ko yeggale di santaan mbooloo bi bu baax jataay bi dafay bëgg a yàgg ca kenn ku nekk xam na ne dug jot dug man waaye sëriñ bi daal li mu wax mooy déplacement bi rëy na ci lool ci moom foor na lool ci moom jàpp na la lool teg na la loxo jàpp na la ndax lii nga def rëy na ñëw déplacé wu ñëw ci moom nee na xamal nañ la sagal nga ko ndax déplacement bi bu dul woon dara si yaakaar naa ni ministre de la république da nga koy sagal rawatina nag ngeen bokk lu yàgg nga ñëw ci ëttub Cheikh Béthio ñëw ci ëttu kër Serigne Touba kenn mënu laa fay kon monsieur le ministre ngi lay sant bu baax di la gërëm di la yàlla lépp loo xam ne yaa ngi koy wut yàlla na la ko yàlla may ci barkeb Cheikh Béthio barkeb Serigne Touba di nuyu nag alaaji Saliou fay Daaf di sama frère di sama lépp nga xam ne campagne électorale 2019 maag moom ñoo ko ànd ak président Macky Sall ba mu jeex takk allahuma sëli ala seydina mouhamadin wa sëli njabootuk Serigne Béthio nu bég nañu ci déplacement bi képp kuy cantaakun bég na ci sa tànk yi nga def yëkkati ko dox ko jëm si fii nee mi ngi ciy bég lool bég na ci lool nee na ko nuyul président de la république bu baax a baax santal ko président de la république bu baax a baax El Hadj Sall nee loolu mooy kàddu yi benn baaraam ab loxo boo jàppee benn baaraam jàpp nga ñëpp yow kenn ku ne xam na ni nga mel am nga fulla am nga fayda farlu nga fulla mooy nekk ci lu baax ci boo ko jegee ñàkk fulla fayda mooy nekk ci tool yemale yow képp nga nekk ca bu la ca téeméer fekkee yaa nga ca bu la ca kenn fekkul yaa nga cay liggéey farlu mooy loo xam ne fu waxtu ba jotee nga def ko ci kenn du la soññ allahumma salli ala sayyidina Muhammad nee nag am na lu ngeen waxtaane yéen ñaar nee dégg na ko nee dégg na ko incha allah nee dinañ ci waxtaan bu soobee yàlla jërëjëf